Assalamualaikum wa rahmatullah mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ngi nuyu ñepp goor ak jigen ak mag ak ndaw ak rawati na site internet bi di sëñ Modou Gaynde keman euh, mo ñew set si borom dekk Njawara alkali su ko defé ñi talal ko suñu micro mu wax ci gam gi nga xamanteni talibé taalibe Cheikh Ibrahima niassi ñoko fi amal at mu jot bi moy fukel bu yoon ñu jox ko suñu micro. ñu ngi leen di fay di leen dalal jamm ci fi ci Njawara alkali da leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëf xarit la tànk cant sa jëkkër dañu dikk rek ci taalibe baay gi nan la duggee ndax nit du xëy xëy rek nekk taalibe baay il faut rek yëf yi di la dugg par ndànk ba keroog ngay eh, yëf yi di ba di la man maanaam ëpp la doole nga xam ne tey jii yaa ngi sentir sa bopp si baay kañ la la yëf yi dugg ba nga nekk taalibe baay dëgg. man daal taalibe baay daal. Mhm.

baykat yi daal kontaan naa si am fayam. yàlla ma ko yàlla fayal. waaw man daal lu bëgg suba ba ngoon jot moom. ma si jàppale. man daal ñu ngi ci bu di gàmmu Jawhara alkali bés bu yegsee lan ngay di bés boo dañ koy am cinq année su yegsee lan lay di yëg. jàng yi ngeen ko commencé ba ñu ngi ci gis ak yokkute ñu ngi ci gis yokkute ci dëkk bi barke beeg leer gi lépp ngi wàcc ci dëkk bi kon ñu ngi ñaan yàlla rek adre bi ngeen taxawal surtout xale yi dëkk yi fii ci Njawraal Kaal yi ñu ngi leen di ñaanal yàlla jàppale leen ngeen doon gën a doon mag gën a xir gën a jublu ci li ngeen di yëngatu am na solo lool ci yéen ñi koy def waaye amatina solo ci dëkk bi ngeen xam ne yéen bu ney Njawara alkaal yi fii ngeen fekk baax di talibé Mawlana Cheikh Ibrahima Niass. ay ñaanal bi doyul gërëm yàlla barke na si bu ñu ñëwut seen xol ñëw na seen rakkan leen taxawoo te duñ xumpale si ñoom duñ xumpale si lenn ak mu mel ni Baye. Euh, si yaay suñu borom dëkk xale yi yoon wi ñu jël nga xamante ni ay conférence lañ fiy fexe at mu jot kon daal mel ni dëkk bi yëpp ànd nañ si li nga xam ne moo di gàmm gi di si jàpp bu baax a baax waaw li ñuy wax wàkk bu dajo gesoo la mhm. lii moom waxuma la yéen xale yi waxuma la waaye mag ñi nga xam ne ñi ñoo leen jur sax ñu ngi am rëcc boo xam ne bi ndax ñun biñ ci tolloo suñu activité xam naa mu ngi ñu ngi ci woon ci xel mi ak yëngatu bi waaye dafa des yéen nag yéen a ñëw waaye waa kon gàcc nga lama doomi Ndiawar alkali biñ amee doom yu mel ni yéen ngeen taxaw dégg ma suñu yéeneeg ak seen Pastef ngeen fexe ba jëmale seen adresse bi fii jublu ko yéen andi ko fii ci Ndiawar alkaali ñu ngi leen di sant bu baax di leen ñaanal bu baax comme ñun suñu wàllu wéy na ah ñu ngi leen di ñaanal adresse bi daal dañoo bëgg daal mbollem bankas bo xam bi mu ngi yëngu ci wa kër maulana Cheikh Ibrahima Niass njawara bu len ci ken ëppale content rek ak mbégte rek saa su ñëwee rek damay content kontaan jërëjëf mbokk yi ñi ngi and rek ci Tourène waye paré guñu xadi lañ doon jox cadeau gi nonu légui rek suñu paré inshallah xadi bu ko defee ñi yeewi la andatal keneen ci biir kër gi mbolo ma ngi fi xalé ya nga fi man ngeen ko toitkal la ñangi mo def te ñu ngi leen di ñaanal bu baax Euh, mos nañ la tuddee bés bi gàmb gi mos na jot ñu tuddee la ko kon yaakaar naa ne su ñëwee dina am loo xam ne da nga ko yëg ci sa yaram tey lan ngay yëg ba gàmb gi yëg si waatee. kontaan rek. Mhm. lu baax moom. bu mhm. la ko xasee tudd. Mhm. kontaan rek nga see def. parce que mos a kontaan. kontaan bu xam si nawet kontaan la keroog bés bu moom. ñëpp a kontaan ak sama dëkkandoo samay bokk lépp si kontaan jàppale ma ba ñëw fa. loolu laa si gën a kontaanee tey. loolu laa si gën a kontaanee tey. Mm-hmm. kontaan yaa ma fu yem. Mm-hmm. tey ñaanal rek fan bu David Garam. sant waa dëkk yëpp da leen mm-hmm. lan ngay dégg ñi nga xamante ni itam eh. bëggoon nañoo ñëw teewee si bés bi comme ni ma la ko waxee woon sànq bi suñu waxee ne ñu bëggoon a ñëw teewee si bés bi xel day ci baykat yi ci daayira bi la bokk. tey yaakaar naa ne bu jege woon nga xam ne mën na xëy ñëw wala gonti ñëw kenn du ko fii waaye sori na lool looloo tax mënul ñëw ak ñeneen ak ñeneen ku ci mel ni moo limin ni benn saxaaru poos mayu leen ñu ñëw maanaam wàllum koppar wala ñenn ñoo xamante jot mayu leen ko ñenn ñoo xamante itam problème àdduna tënk na leen ba mën a ñoo ñëw yéen kàddu rek nga leen di yóbbante ñoom itam ñoom ñi nga xam ne ñu ngi seetaan te bëggoon a ñëw teewi ñëw teew kàddu yoo leen di yóbbante suma kàddu gu mujj xanaa di sant yàlla rek ndax at bi ngeen ko fi defoon daaw ci waxtu wii am na ñoo xam ne ñii fekke wu ñëw kon bu ñu yàlla mayee baaxee ñu fekkee ko du suñ wóore du suñ ndam waaye ñu ngi ñaan yàlla it ñu fekkee ko ay yu bari ak yi gungi leen ci ba ngeen taxaw ba ngeen samp ba dëgër ñu ngi ñaan gàmm gii daal mu doon gàmm goo xam ne gii daal genn lay doon ci gàmm yi ngeen weesu yaakaar naa suma ma juumul defe naa bii mooy fukkeelu gàmm boo xam ne bii yéen a koy def fii ci Njawar Alkaali kon nag ñu ngi leen di ñaanal bu baax te yaakaar naa ne it bu soobee yàlla bii dana mooy mooy jiitu bu bu bu daaw bi te it ñu ngi ñaan yàlla buy ñëw it fekk ñu fi ñu ànd ak tal mu gën a rafet gën a neex gën a yokku incha allah jër gën jëf.